asalaamaaleykum gaay waaleykum salaam wa rahmatullah tey jii bés bi axlul dóoru ko moom defoon nañ ko bi yàlla doli jàmm yàlla yàlla doli waat jàmm lii nga xamante ne moom la ñuy yëngal nii tey moteur bu ngeen dégg mu riir rek fédération lay signalé yàlla muy dara teewul yàlla na ko yàlla may. président Macky Sall premier ministre ba si Marème Faye Sall ak kenn ku si nekk na nga jàpp ne fédération waa axlu deux roues nañu si dimbali. bëgg nañ ko soxla nañ ko te bu laa yàgg lañ ko soxlaa parce que fi mu nekk ni xandal yi noo xandal si si yi. xayatul si si palaas ya ndaw yàlla mii dara teewul yal na leen yàlla dolli sutura Sénégal yal na fi yàlla dolli jàmm dolliwaat ka fi dolliwaat ka fi mu mel ni riiru moteur rek nànk-nànk ak saa gars yi ziar nañ leen yal na leen yàlla dolli sutura may leen ngeen dund ba doyal dund leen plus de ans yàlla wisaat leen 9 ans muy 131 ans yàlla tegaat ci tuuti rek xale yi xam nga yàlla moo leen jàppale yàlla moo leen may ñun suñu génération amuñu yoon li comme am ngeen ko nag sant yàlla war ak julli jàpp si sama xam-xam lii nga xamante ne moom la leen yàlla may bu leen ko xeeb réew mi am cent franc nga xeeb ko bu amee 1000 francs doo ko yëg nanu góorgóorlu ba taxaw ci li nu war a taxaw muy ful fayda bàyyi ñii bokkul si diine ak seen diine waaye tamit bu kenn sabote diine kenn loolu la wax nan naka lañ ko tuddee ci tubaab dialogue lan islamo-chrétien ok sama gars ma kontaan ci yéen fu ma cangee rek ngeen dang ah? beneen affaire bi mooy casque yi nga xamante ne moo nekk moto andak ak luy riir gars yi bu leen fàtte casque yi waay c'est important si ri si si réew parce que gune yi bëgguñu leen perte benn yoon moo tax bëgg man mii ngeen di gis nii bés sa tëngeej la ma dale te ñu ngi nii après tëngeej la dem tëngeej lama ma dale ma daanu ba jaaxaan waaye casque laa soloon yëg naa rek ne sama bopp nee na këng si si si tali boobu jëm jokkul mais yëguma ko sax dama mel ni rek ku tëdd si lalab éponge doo yëg la bari farlu leen si kaski yi casque yi itam ñi koy jaay nañ ko wàññi ndànk-ndànk guni yi mën kaa takka la sol yàlla ngeen defaral leen casque yu baax a baax a baax yàlla mi dara teewul yal yàlla jàppale xale Sénégal may leen jàmm ju matale matale matale barke Serigne Abdoul Aziz Sy jërën jëf sama